wax mbiru mandat bi rëkk nañu diggam euh, dañuy doon laajte est-ce que euh, deux mille vingt quatre da demaat euh, wuti baatu sénégalais wala déet. xam nga diggante daaw ak ren dara xewu fi lu bees ci fànn boobu ba tax na damay topp si la Birima doon wax rek Birima may seetaan xëy na. daf ne woon sama waxu daaw ji de mooy sama waxu ren ji rek dara xew fi lu bees lu tax ma war a changer sama kàddu ñaareel bi tam ànd wuti am ba pare beru dafa bokkul si lu lu jaadu loolu dama koy wax sax si beneen fànn mooy ñi naan wala président warul def wala warul def laa ci wàllu njiitum parti ak yooyu lii man dañ ma fànn ci kóolute réew mi kaddu gi nga wax laata ñu may fal am nañu ko posé déjà 2018 2017 waaw moom kañ lay pare benn mandat ñaari mandat de toute façon bés bu wax jotee danaa wax wax ji ngay dégg nag mënul xumba xumb ba ñu tax ma wax ci baat te li tax ma wax sama waa njaboot aussi buñ si wax mooy ñun liggéey lañ ñu sant mën nañ la fal ba pare au lieu nga def liggéey bi tax ñu fal la ngay wax ay wax lu ñëwagul kon ku ma déggal wala bokk si man soo ko defee damay jàpp ne yow nekkatoo ci liggéey mais ñi si biti kay mënu ma leen tere wax ñoo ñoo ngi wax loolu intéressé wu ma man parce que la wax engagé wu ma waaye mënu ma nangu nag ci sama biir parti wala coalition bi nga xam ne dañu ànd ak man ci liggéey au lieu ñu liggéey ñu nekk ci ay waxu caaxaan yoo xam ne jotagul parce que bu jotee lu ci war a am dina am lu ñu war a xam danañ ko xam kon loolu mooy wax ji rek mooy waxu daaw ji rek ba tey mooy waxu ren ji. nga am na benn yóbbante aussi bu ñu am pour yow. ci waa Mawel Dembankaani ñu ngi laajte tali bi diggante Mawel ak Dembankaani kan lay commencé est-ce que finance bi am na société bi koy liggéey dëggam si waaj nañ ko waaw jërëjëf foofu xam nga waroon naa dem tournée sax depuis daaw waaye chaque fois mbas mi moo ñu yàqal nii nii si janvier bi la fas yéene woon dem waaye je suis obligé ma dàqaat ko pour tàmbali euh, lancer travaux li ñuy wax Dandé Mayo mu ngi déparé nag ci début maatam parce que Podor pare nañ ko ci euh, Oréfondé dal di ñëw ba Nguidjilone ba Matam après deuxième tranche bi mooy jógee Matam ñëw Kanel dem ba euh, Waoundé jóge wawunde dem Dembankané donc loolu aussi mooy deuxième phase bi kon tàmbalee guñu ko mais dinañ ko programme probablement ci at mi ci njeexatalu at mi première phase bi moom laa waroon lancé bu ma demee jamono ji mais ma xamal leen ne dinañ ko def bu ci yàlla àndee. merci beaucoup kon euh, Néné Aïcha euh, ñu baral ci laaju politique bi. monsieur le président si vous permettez euh, ci wàllum alliance wala ouverture sax laay wax vous réussissez euh, des prouesses monsieur le président peut-être bëggoon nañ xam ce <laughs> secret par rapport à ça. mais également euh, gis nañ aussi ñu ngi lam-laame benn euh, coow mu di euh, amnistie ay faits yuy dem bay laal peut-être Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall bëgg nañ xam tamit ce point de vue par rapport ak amnistie de personnes yooyu euh, troisième bi monsieur le président très rapidement kii di euh, maître Abdoulaye Wade ñëwoon na fii euh, seet si la après seen poignée de main bi Massalikul Jinaan boobu ba tey peut-être ñu ngi doon xaar kii di président Macky Sall dem delloo seet bi kii di maître Abdoulaye Wade boobu ba tey gisaguñ ko lan nga ciy xaar également foofu lay tàmbalee d'abord maître Abdoulaye Wade xam nga sama kilifa la ci fànn yu bëri ci wàllu kilifteefu njureel waaye aussi nekkoon na sama leader te moom la ñu xemale ko ci politique loolu lu yàlla def la donc euh, bu ñu amoon aussi ay jafe-jafe loolu ci wàllu politique la mais taxul suñu ay rapport euh, mu yàqu tey jii maanaam nag politique moom xam nga comme maître Wade moom politicien la moom moom luñ ko dindi ci moom léeg-léeg euh, postures yi dana tax ñu foog ne wala boog ñu jàpp ne amoon na jamono bien sur amoon na ay difficultés mais je pense que loolu weesu nañ waroon naa ko dem seeti euh, bi mbas mi commencé itam jàpp naa ne nekkuloon fa période bu favorable parce que distanciation waxtaan dafay jafe alors loolu rek la du leneen alors euh, li ci des itam euh, li nga wax man du ma si débat damay éviter toujours personnaliser débat parce que dafay subjectif Euh, débat boobu nekkagul à l'ordre du jour donc duma ci sore euh, li ci des itam wàllu dialogue bi euh, boo gisee ñu naan ay prouesse non dama jàpp rek ne réew mi ñun ñoo ko bokk dañ ko war a waxtaane day am jamono dañuy maanaam jàmmarloo ci wàllu politique ñii tey ñëw fekk si ma mais samay adversaire la ñu woon samay adversaire la ñu woon même waa Benno Bokk Yaakaar dañu demoon wuti ñun ñëpp yàlla daf ma jiitu ma woo leen ñu ànd ñu jàppale ma boobu ba léegi ñu ngi nekk ensemble donc loolu dafa nekk ngëm-ngëm si sama gis-gisu politique yaatal joxe loxo pour que d'abord ñu am jàmm mën a liggéey parce bu jàmm amulee parce que bu nekk yëf yi paccaxoo wax ji jàppal bàyyil mais même booy liggéey kenn du ko gis donc apaiser si euh, terrain politique bi dafa bokk si liy jëmale kanam suñu réew donc loolu rek moo tax ma ma def ko ñi nga xam ne tam ñëw nañu dama leen di sant bu baax que loolu aussi courage la doon xeex leen ñu dem ba am convergence parce que dialogue bi tam am nañ si convergence yu ama am solo suñ demee ba li nga xam ne moo taxoon ñu ñu xeex bokk nañ gis-gis kay war nañ mën ànd liggéey surtout que boo ñëwul tam man li may doxal dama koy doxal mënoo si dara loolu parce que yàlla may nañu démocratie boobu ak doole jooju kon ñoom vraiment dañ leen war a sant parce que Sénégal nag damay gis ku ñëw si pouvoir bi ñu xas la tam la lu nekk ku jógee si pouvoir bi moo xam dañ laa dàq wala yow yaa demal sa bopp yow yaay héros bi mais loolu fu ñu ko teg loolu mooy lan si ban si ban euh, kàllaama la loolu ku ñëw si pouvoir bi daal yow baaxuloo santoo yàlla et cetera ku génn yow yaay maanaam jàmbaar mais loolu méngoowul ak dara nañu rafetal ku nangu ñëw ñëw ku nanguwul ñëw dama dama nangu opposition de war a am te loolu dafay dëgëral démocratie donc foog mu am ñuy bañ foog mu am ñu dul ñëw foog mu am ñu critiquer loolu si intérêt Sénégal mais Sénégal vraiment li ñu def fi bitim réew dañ ñu ko nawee comment est-ce possible ñaari candidat yi ki nekkoon premier nekk président tey deuxième bi ñëw fekk si ko parce que dialogue nañu wax nañu fas yéene ànd liggéey loolu je crois que njëriñu Sénégal